salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àdduna ñu ngi leen di baalu ak ci weeru koor gi di leen nuyu yéen ñëpp di jox seen wàccuwaay bu baax di bëgg di ñëw di waxtaan ak yéen ci benn affaire bu ma bu may troublé tuuti ci côté teesu complot Ousmane Sonko bi complot complot complot complot complot complot bi ji nañ ko ñu bëree bari bari bëri bëri ba léegi chaque jour ñu indi ñu comploteur bu bees ji nañ ko président Macky Sall di nañ ko euh, Ahmed mbay di nañ ko metre Dione Diagne di nañ ko maître El Hadj nañ ko Mamour jàllo di nañ ko Bougane Bougane Dany ah complot boobu kon mu ngi lii bu yàggee man mii nañ ma ciy jiindi Sonko mbaadu lu la complot mooy sa tubéy bi Sonko war nga xoolaat sa bopp fu nekk nii yow kenn tooñ la yow rek yaa tooñ sa bopp président Macky Sall tooñ la benn sénégalais tooñ la ñi nga nekkaat ci waa Pastef sax xam nañ yaa tooñ sa bopp parce que boo demee bay opté pour jiite Sénégal nga dën jeune bu nga xamante ne ñu bëri amoon nañ ci yaakaar. ah nga jël loolu yàqee ko boo yi nga xamante ne booy aji saar yi dof yi booy yi nga xamante ne ci àll bi fii leen dëkk ñu xamuñu dara ak kii laa fët léegi ñun nag jeunes yi dañoo sonn ci complot complot demal nga déggal sa bopp nga wax ak nguur wuyul fii kuñ fi convoqué ngay du Karim Wade la neew ñu convoqué mu jógee fa mu ñëw France mu mu ñëw Sénégal déggal boppam yow pourquoi pas ñu la ne waa convoqué nañ ma gën leen ngeen rey seen bopp te yow bu nga jotee mairie ba fee say mbokk nga jël Barthélemy Dias bu mu jotee mairie ba ay mbokkam la jël te ñun jeunes yi ngeen bàyyi si biir duñ ko def te duñ ko def suba duñ ko def jeune bu fi génn ñu rey la yaa tart ànd leen seen sago man Macky Sall jaralu ma marche Abdoulaye da jaralu ma marche kenn jaralu ma marche wàcc ñu dóor la baal nga de ku ci dee da ngaa xaru Sonko ay mbokkam rek la yëg wala boppam ak tubéyam boobu la yëg yeewu leen te yàlla tax yeewu leen te yéen waa yeeyu askan bi ngeen baal ma xaw ma yeeyu askan bi xaw ma nelal askan bi dañ maa yóbbante si yéen yóbbante bi mooy yëlwaankat Sénégalais yi nee nañ dañoo sonn parce que lu ñu war a yëlwaane Ousmane Sonko ak gàngooram ñu ngi koy jot bëgguñu mars nag bëgguñu wàcc ci tali di mars gars yi di leen mere néew doole moo war a yëlwaan mais chaque jour cotisation chaque jour yëlwaan yëlwaan léegi yëlwaankat Dakar yi dem nañ ba amatuñ dara waaye yéen tamit